Premier combat de la soirée Première journée Fiti Kaulak 2023-2024 organisée par Ibou Keita le jeune promoteur xale yaa ngi noonu sëgg ci diggante Gane Seras ak 50 bu Koundam 50 waaw 50 bu Ndangaan 50 bu Ndar gu ndaw Gane Seras moo ñu wan kanam ngemoo ngemul xonq li arbitre bi soufflé na Laurent Gane Seras fu um mu jëm Gane Seras fu um mu jëm Gane fu mu jëm ñaari xale yaangi nonu ci biir kaw bi digënté Gane Seras ak 50 bu ndar gu ndaw 50 bu ndar gu ndaw mo sol kiwisaar bi ngemboo ngembu logos bu woon ñu gannaaw ndaysan ñepp gi ngi laaj fu ma sañse ku ma sañsel ku ma sañsel jiin bi dafa rafet bu bi rafet dal yi rafet daw na jël nako ndaw abima amen ndaw borom baru fukk jaay mo fa jaar xale bobu attention jaar sol nako dan sol nako genn nañu génn nañu dafa daw jël ko daan remplacé ko war ko ndomba waaye xale bi dafa daw génn avertissement avertissement soufflé waat na Laurent diggante Gane Seras ak bu ndar bu ndaw xale noonu Gane moo ñu wan gannaaw ndeysaan sol ngeen mu lu bu ndar bu ndaw ñu kanam xale yaa noonu Arbin Berlin Arbinderelen Berlin Berlin Berlin ndeysaan xale yaa ngi yang cinquante laal na bopp ba bañ banyak, ko gaan bañ na jawab ngay joob jaabu ko attention gaan remplacé na ko cinquante saa yu dawee jël su tur rek gaan da koy mani tuur ko mu dem maninam la maninam la ndeysaan Laurent daw na jëlaat ko ndeysaan gan bañ na jappo bi lan mo waral loolu lan mo tax gan bëggul jappo bi ndeysaan xale ya jàppante nañu ci loxo ya attention bi am daaw daw na jël ci suuf la ilaha illallah boo bi dawal na jël ko jappo nañu legi gan génn na gan génn na pourtant jappo bu wax baax na lu tax gaan génn lu tax gaan nañu jappo bu bax dawal na jël ko dawal na jël ko jaan boole ko ko ca kaw ndeysaan xam nga gaan da ko sut nak attention gan fii la bii fii la bii trois fois xoma quatre fois boy bi rëcc bayil te mën la naan la ilaha illallah ndeysaan keur bi biir na dal ba gay amatu ñu fu ñu toog gars namu lambu du nuyu Pape Moussa Koura Mbaye Moussa membaik, promoteur kaw la yëpp ñu leen di nuyu ndeysaan tey bu kayta xewle suba keneen la xale yaa ba dara Ada Boy jinne yi organisateurs yi ndeysaan il a réussi le coup Ada Boy ak show l'infatigable show dara amagul ba léegi ci diggante ñaari xale yi jàppante nañu dara amagul ci diggante Gane tak ak bundar bu Ndar bu ndaw dara amagul ndeysaan dara amagul ba léegi attention daw nañu jàppante Senghane dafa bëgg a jeexal combat bi Senghane boo ko xoolee ni muy pare dafa bëgg a jeexal combat bi ndax day daw di jàpp Gane am na njàmbu bu baax nga am Gane bëre da nga bëre ñaar nañu ci ndeysaan Diané ëpp na los ñoom ñaar ñëpp téyante nañu ñoom ñaar ñëpp téyante nañu attention saako yéen a leen génnaat nga def tànk soo génnee da nga am deux avertissement cinquante bu ndaw ak Gembo Gembu lu li cinquante Gembo Gembu la cinquante attention cinquante jëm na bët cinquante bi waaye mën na dem na koo bëtt waaye gaan bañ na bloqué ko parce que gaan xamoon loolu ndeysaan ñaari champion la attention attention cinquante lu bëgg a bëree top cinq la bëgg a bëree waaye dafa ndànk ki ngay bëral c'est un très grand lutteur ñu naan ko gaan seeraas góor a keneen moo ko indi ndeysaan gaan génn na ko génn na génn na da ngay am avertissement nga moytu troisième bi dégg nga soo ko xamaatee rek musiba dana la dal ci lamb ji deux avertissement cinquante waaw waaw gan moo avantage diggante Gane Sène ak cinquante bu ndar bu ndaw arbitre nee na mi-temps premier combat de la soirée ci diggante Gane Seras ak xale bi nga xam mom la ñaan 50 bu nor bu ndaw xale yaangi nonu ba légui dara amagul xale yaangi nonu dara amagul gan remplacer nako jël tank bi ndeysaan xale bi da bëgg a sotti combat bi ginaaw bu amé ñaar avertissement attention ñaa ngay bëre Gane daan na ko Gane daan na